<laughs> root naa ci RFM euh, manifestation bi amoon ci primature euh, pour la libération de Pape Alé Niang très rapidement lan nga mooy si sa xalaat parce que il est dans un état état quand même euh, très grave en fait gis naa léegi benn benn information ci kii jiite suma assistance mi ne mi ngi si jàmm mais lan nga xalaat ci emprisonnement journaliste bi. Pape Alé Niang d'abord sama xarit la personnellement. Mm-hmm. Mm-hmm. on se fréquentait assidûment. loolu mm-hmm. peut-être ñu bëri xamuñu ko. C'est un jeune frère pour qui j'ai beaucoup de respect. Je pense aussi que, de manière générale, liberté d'expression et liberté de presse, nous, on est tous pour ça. Mm-hmm. dans toute la mesure du possible, le la place du journaliste, c'est dans euh, c'est d'or. muy def activité. maintenant loolu laa ci mun a wax de manière dans l'absolu. Mm-hmm. Euh, maintenant loolu laa ci foofu laa ci mun a wax parce que aussi. il faut que de temps en temps presse bi tamit nekk journaliste. Hmm. waxuma pour le cas de Pape Alé en particulier de manière générale. journaliste dafa war a nekk journaliste. ba ñu nekk agent de communication. junj doy na bon yaakaar naa ne. <laughs>